nga wax ko ci turu jëwriñu doyol yi sëñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacké ñu gën koy yaatal ci sëñ Baara doyol yi sant nañ bu baax ndax ràññee nañ ci jàngee nañ ci am nañ ci it xal mu dal xam nañ it yoon wi ñuy teg suñu tànk ngir jëriñoo ko kon yàlla na ngeen yàgg suñu kanam te wér ah, mbokki taalibe yi nu maase nag déglu kàddu yi nga xamante ni moo jóge ci ku tedd ki di sëñ ma Balla Mbakke lam ma wax nee na mi ngi xamal ñépp ne nan góorgóorlu waat ci jaamu yàlla loolu yi de nee na mi ngi koy fàttali nee na nan góorgóorlu ci li Sëriñ Tuubaa bëggoon ci ay dongoom sëñ Abdou Dia taxawee woon ca noonu ba am ci taxawaay bu màgg bii mu am nee na nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ni ma ko waxee ci baatu wolof su koy wax ci français dafa insister ci ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla góorgóorlu ci jàng alxuraan te jub nee na mi ngi xamle valeur yi nga xam ne dëkk bi ñu nekk Daaru Salaam dëli njëkkeewul ci ay loxoom. ci ay magam la njëkkee muy sëriñ seex ba ci bàyyi sëriñ mii nga xam ne moo fi jóge bu yàggul nee na ñooña lam daan lañ daan digle loola ca ne lañ daan tere loolu la fi tere du fi def mukk mbaa mu fi wax mukk lu wuute lafi sëñ Cheikh ba ci bàyyi sëriñ mii doon jëf nee na ab doxinam dey war naa yomb ndax ñooña kenn ku ca nekk tarbiye na la taxawu na la ba làq su ngërëm ci dëkku waay juróom wii kon yoon wi mën na cee dox bu baax nee mu xam la ne ñeme na ci lool ñeme gim ci ñeme nee na mi ngi ci ànd ak sangam yi di sëñ Mouhamadou Lamine Baara yi nga xamante ne moo toog ak sëñ yi dali Mbakke ak rakkam yi nga xam ne ñooy soxna yi nga xam na saa su ne ñu ngi koy dékk nopp di ko wax mbàkke nan lañu ñu war a taxawee kon loolu mi ngi doon xam le naa ko xam beneen bi ci topp mooy nee na mi ngi gërëm bu baax chef de l'État mi ngi koy ñaanal li tax moom la yàlla teg fii ñu tollu ci réew mi mu nekk président de la république sëñ falu Diam yi doon wax léegi di meeri Ndioumane ak sous préfet bi nga xamante ne jóge na fi ak le ministre de l'environnement maam Thierno Dieng wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ci seeni ndigal lañu fi ñëwee kon mu ngi koy ñaanal mu ngi koy gërëm lépp loo xam ne jóge woon na ci ay ndigal muy dox ba yegg ci sëñ Fallou Jami dara manqué wul jëfee nañ fi lu kowe njor loolu yi tax na lii muy ñaan am na fu mu ko teg tey ku la defal dara di ko ñaanal mbaa nga gërëm ko muy xamle kat ne moom amul lu dul ak ñaan kon mu ngi ñaanal chef de l'état mu ne ñu toll it ci jamono joo xam ne nit ñaa ngi xëccoo réew mi kon ñi nga xamante nit ñooy xëccoo réew mi mu ngi ñaan yàlla may leen jàmm en résumé bu fekkee ne daf leen di boole Sénégal lay ñaanal yàlla def fi jàmm ba kenn ku ca nekk la ngay wut nga wuteen ko wutin woo xam ne bismillahi rahmaani rahim lay doon àgg ci alhamdulilahi rabbil alamina politique du bojjante ay paaka wuute ay xalaat dong la te l'islam ji ñu nekk sax am na ci fu bari foo xamante ne njëlbéen nga ba fii nu toll wuutee da ca am kon nan ko jàppee noonu muy xamle ne yi fi jàll saa su ne nga dégg na diw faatu na yéen taalibey sëriñ Abdou Diaye ak mboolem koo xamante ne kàddoom yegsi na ci moom sëriñ baa ngi xamle ne li sëriñ du Diaye liggéey sëriñ Touba fay ko sëñ Ilimaan mii wax na ko léegi xajul ci àdduna ba jëm àllaaxira kon nee na luy seen walla di ngeen ko jot na ngeen am fulla te xam ne ñépp a foor waaye yéen da ngeen a riche li tax mu wax ko ndax nee na sëriñ tubaa yonent bi dafa tànn sëriñ tubaa tànn ci yonent bi ci biir murit boobu mu tànnaat jox ko sëñ Abdou Dia mu doon loo xam ne taalibe bi njëkk jéblu ci moom sax moo jàpp ci loxoom jox ko sëriñ Abdou Dia mu ne loolu kat doy na firnde actualité bii ñu nekk nit ñaa ngi dee nit ñaa ngi xaañante nit ñaa ngi sàggante mun a rikk waay ngeen xam ki ngeen àndal nangeen ko doon jëriñoo de mooy yar la xamoon yare jaamu yàlla jàngale liggéeyi làq ngërëmal way juróom wale di Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul loolu daal neewoon na message bi mi ngi koy jàllale te nee na lu ko ñor la ngeen xam ko xamin bu wér-wér salaamaaleykum wa rahmatullah lii na ma woon naa ko wax suñ paree jox ko kàddu yi bismillah bambaya may diyoo yaay may dolli ñooy fay borom diyooli sëñ bambaya may diyoo yaay may dolli ñooy fay borom diyooli si abdu yaay góor si abdu yaa woor kenn gënu laa foor sellal na bab di yooni sëñ di ko صدنا إلا تصبنا إلا توننا إلا برم ديال ملوي ومؤمن قصبت بري بمؤمن غيرتك بامبا فمونا moom sunu maam Cheikh Abdou Dia ñu ngi ñaan sëñ maam Balla Mbacke yàlla na fi yàgg di ko ñaan sëñ Baar ak njaboot si ñoom di waaw bi mu ne. wax ji foofa lay taxaw na ñëpp tàllal loxo yi mu ñaanal leen. te it nee na lu ci fay fas boo ko feccee dinga nga dajak loola. kon nangeen fas te teewlu ñaan gi képp koo xam ne jariñu moo la indi woon ci màggal gi. nan xam ne kat lin fiy wut si bu newoon sunu kër duñ fi ñëw nan dékk loxo yi te teewlu te nan amin amin آمين يا رب آمين آمين سيل النحار بهذا الأبيات الستة قولي قبل هذا الحامي كتاب ربي إنك الكتاب وفي هذا سالك الكتاب آمين آمين خمن تحوى التاب وكتب يا أخي الله آمين والمسؤول أمور من الأمير آمين لما لو سماك الأرار لما لخير خير قد نفى أمر لي آمين لما لو الخيام الأوتان ليون بي لم يمن الشيطان آمين إلى الجنان خارين الإسلام فيه لجند الله لا ولام آمين سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب بركة سن توبا آمين يالا نكو تي أي ديوني ديوني يالا نكو يا غادي ديف آمين آمين تي واي lu ci waay bëgg bu fi jógee yàlla na ko am آمين سائر البلد الدنيا والآخرة